salaamaaleykum Sénégal ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di leen jaajëfal di leen nuyu ci weeru wu sell wii di weeru safar waaye ñuy jëpp weer boo xam ne weeru gàmm la ñu jógee ci événement bu rëy ci diine l'islam mais événement bu rëy ci Sénégal mu di màggal ñi ñaan lépp loo xam ne ñaan nañ ko fa rek yàlla na ko suñu borom ful mu doon ay ngëneel ñu ngi leen nuyu ni ñaan leen nuyoo fii ci people 221 tey nag ñu am mbégte ci dalal koo xamante ni tey mën naa ne lii sax baaxoowu ko ndax wër naa ko fu nekk ci àdduna bi waaye wër naa ko fu nekk ci réew mi jaraloon na ma ma risqué ni man damay dem dëkk ba fekk ko fa mais boo leen xoolee émission bi ñu ngi ko tourné presque deux heures matin parce que la ko jar ko jar te ku ñëpp soxla boo ko bëggee it faaw ngay def ay effort muy Thierno Boubacar Diallo moom lañ fas yéene ñëw waxtaan ak moom ci wàllu xam-xam fas yéene ñëw waxtaan ak moom ci wàllu liggéey sëñ bi dañ lay bàyyi nga nga xam ne ñoo lay siibur. asalaamaaleykum wa maa ngi leen di nuyu di nuyu ku nekk ak sa tuur ak sa sant maa ngi leen di nuyu di leen naan bisimilah. Mm-hmm. bisimilah. Mm-hmm. kontaan na ak seen ñëw fii nii. Mm-hmm. maa ngi jéggalu noonu nga bi ngeen ñëwee da ngeen fekk maa ngi jàpp. dëgg la nit ñi dañoo bari woon moo waral munoo leen woon jot ci man. dëgg la waaye bisimilah. dëgg la tey fi may njëkkee mooy Thierno Boubacar lan moo ko dugal ci ci ci ñaan daf ko donn wala dafa doon xam-xam boo xam ne dafa tëb tëb rek fekk ay maam di ko def mu koy def wala daf ko jàngi. Ah, ñun xamuñu dara ci àddina sudul euh, sàmm ak jàng mm-hmm. alxuraan ak sunguf mm-hmm. ñun loolu rek moo nekk lu ñu xam mm-hmm. xamuñ leneen lu dul mbiru sëriñ ngati ci àlla lañu juddo ci àlla la ñu màgge ci sàmm la ñu juddoo. ci mhm. sàmm la ñu màggee jàng alkuraan ba jeexal. Mhm. doon naa tamit su ma euh, lu ma donn ak si sama maam mooy sunguf. Mhm. moom lañu donn ak ren. moom lañu ñu xam. jóge foofu noonu nanga tuumuranke tamit ci àll. dugg ci àll tuumuranke bu baax. dem jàngi. mbiru sëriñ. daj ci lu nekk dem bu ay Burkina. dem na Guinée. dem na fépp ci àddina bi di jàngi mm-hmm. dem naa fu bëri mm-hmm. may jàng fii boo ay Niger mm-hmm. yëpp dem naa fa di jàngi alquran jàng naa fa a xam-xam bu ñuul jàng naa fa tamit ni ngi ubbee nit dan jàng naa fa lu bëri aha ci wàllu jàng boobu noonu fi may njëkkee mu di wàllu seet wàllu seet euh, euh, laa bëgg xam naka ngay seetee waaw seet seet yi am na façon yu bëri tey nit mun nga ma woo téléphone moo wax la fi nga taxaw ma wax la lu nekk ci yow yëpp. par téléphone. téléphone mun nga woo téléphone. Mhm. soo ma woo téléphone su ma la wax ah, su ma ma dégg sa baat. Mhm. ma wax la fi nga taxaw lu la lépp li nga nekk. Mhm. ak li nga sol. ak fi nga sa tolof tolof. bu dee am nga njaboot dinaa la wax ba wax la sa tuuru njaboot. allahu ah. akbar allahu akbar waaw dinaa la xoolal tamit ci kurus bi. Mhm. dinaa la xoolal ci suuf. Mhm. dinaa la xoolal tamit ak ci ci ndox. Mhm. tey nit ki est-ce que da ñëw rek tëb tëb ñaanal ko te seetaloo ko. déedéet man balaa maa ngi lay ñaanal dama lay seetal ba ma xam. Mm-hmm. lan moo nekk sa biddéew mm-hmm. ba ma xam li ma lay ñaanal lan la mm-hmm. ba ma xam yow sa rawaxaan lan la soxla ma xam sa tolof tolof ma mun a kaa faj nga ti nit boo xamul jàngooram doo ko mun a faj dëgg la waaw man balaa ma lay ñaanal la su ma la koolalee ba ma xam mun naa la liggéeyal ma liggéeyal la boo nga gis nga fay tamit nekkul dama lay liggéeyal rek ma wax la indil kaalis ma liggéeyal déedéet dama lay seetal ma xool say biddéew xool lépp lu nekk ci yow yow sa bopp ma wax la defal sa nga def sa sarax mhm. sa sarax boo dee am nga sa mbokk bu la ko mun a defal mhm. wala mun nga ko def feneen mhm. da ngay def sa sarax sarax yu ma lay digal nga def ko ma liggéeyal la ba nga gis nga doog a maa fay ma wax la tel nga may fay nga fay ma allahu akbar waaw man dama lay la waaw man su ma liggéey app la am dama lay wax dama lay liggéeyal ci biir neuf jours bu dee lu ma lay liggéeyal gis nga ko ci neuf jours bi xamal ne kan man la boo ko gisee dixième jour xamal ne sa wërsëg la rek waaye du man doo fay kàddu yoo xamante ne nii yombul nit di ko wax parce que ki lay liggéeyal ni la dama lay liggéeyal ba pare nga fay ma yombul fi may ñëw ci wàllu ubbeeku tey boo xoolee jeunesse bi ñu bari ñu ngi daw di jël gaal gi di génn réew mi te ñu bari man gis naa leen nga jàppale leen defar leen ba ñu sos ay entreprise fii ak ci bitim réew wàllu ubbeeku len moo ci sa secret. a ah, ubbeeku nga nit ci wàllum wërsëg. Hmm. doomu aadama butéel bu tëju boo ci sotti ndox. Hmm. du am ci biir. Hmm. dara boo ko ubbiwul doo mun a xam lan moo nekk ci biir nit dafay tëju nit sa biddéew tamit dafay tëju nit sa biddéew bu tëjee doo mun a am alal si sa tolof tolof ngay nekk say kabaar dafay dëgër di nga liggéey béréb yi nga xam te day am alal waaye loo am day tasaaru sa loxo doo nekk nit buy faj sa aaju say kabaar dafay dëgër nit ñi nit ay nit yu baax mun nañ la bëgg waaye duñ la mun a defal mm-hmm. mun nga dem béréb yu am alal waaye yow doo fa mun a am alal mun nañ la jël ngay liggéey ci béréb bu am alal mm-hmm. waaye lépp loo am du mun a taxaw sa loxo mm-hmm. day day doo xam foo dugal xaalis bi loolu ci tëjul nit day tëju ñun nag loolu noonu dañ lay tëjji dafa am nu ñuy ndax ñu mun a laa tëjji lekket bi ngay gis noonu bu konk bi ci lekket boobu noonu ci lañ lay tëjji bu ma liggéeyal li ma lay liggéeyal. Mhm. bu soobee suñu borom. Mhm. ci neuf jours la. Mhm. lii lu ma ci gën a soxla mooy nit bi nga xam te ne ku dem ba nit ñi amatuñ ci moom yaakaar. allahu ñu dem ba naan kii diw dootul am alal. diw kabaaram yàqu na. ci leket gi diw ci neuf jours. neuf jours ma liggéey yàlla ci bu soobee yàlla lu des li ci kurus bi laa koy def damay wirde ci kurus bi ci diggante neuf jours yi dinaa la taal lépp lu nekk si yaram dinaa ko dindi hmm. di nga tàmbale di am alal bi nga xamante ne yow musoo ko yaakaar sa biir àddina allahu akbar di nga tàmbale ay nit di la hmm. feeñu hmm. nit yi nga xamante musoo yaakaar ci àddina ni ñi di mun a ñoom dinaa la ubbi ci neuf yi doo fay dërëm da ngay alal boo ci li ngay am ci nga may fay allahu akbar loolu dama bugg a xamal ne nit ñi sëriñ am na. dëgg la. ñun dañ ci judd. Hmm. màgg ci loolu lañu xam loolu lañ doon. Hmm. ñu koy yàq ñun bokkuñu ci. dëgg moo waral dañuy génn ñun tamit. Hmm. xamal nit ñi ngati nit ñi ñu ngi génn di yàq. dëgg di yàq sëriñ. ñun dañuy génn ñu baaxal sëriñ. ñu xamal nit ñi sëriñ am na. boo génnee di dàkkee dañuy génn ñu indiwaat nit ñi. dëgg la waaw ngati ñuy génn di wax. te duñ def. di wax di yàq mbiru sëriñ. di dàkkee nit ñi. ñooñu bari na ñun tamit dinañ génn indiwaat nit ñi xamal na leen sëriñ am na. waaw tey fi may ñëw wàllu diaspora bi tey man dama ci gis ñoo xamante ni nii ginnaaw yàlla tey bu ñuy dem di ñëw sa jëmm moo tax. wa maa shahidnaa illaa bimaa alimnaa du ma seede lu ma xamul. Mm-hmm. tey wàllu defaral nit papier. ak bu mu mën a doon parce que bu ñu ko waxee ñu bari dañu yaakaar ni mooy papier bi nga xamante ni kii day bëgg a tukki rek am ko papier bi nga xamante ni sax nit day xëccoo këyit. mu jëm ci kër. gis naa ni dimbali nga ci ñu bari ñoo xam ne nangu woon nañ seeni kër ñii ñu bari ñoo xamante ni tey jii ñu ngi tukki di dama ko ñëw grâce à sa jëmm ji. man euh, am naa sirlu bi nga xamante ne Niger laa ko amee. Hmm. loolu ci kii ma ko am ci moom mag la. ndeysaan du jullit. du jullit déedéet ci wàllu kayit man su mun naa la yégal avion ci amoo kayit mun naa la ci tukkil. gis naa ko. mun naa la tukkil loolu sirlu boobu si sa da ngay wot ba sa bopp bi danga koy wat bu set du am karaw ci laay bind si sa bopp bi laa koy bind ma ut bu la nga tent bopp bi di mun naa la ci yëgal ci avion amoo kayit allahu akbar bépp doomu adama nga xam ne kayit nga soxla dangaa bugg kayit dangaa mhm. tukki nga soxla kayit mhm. wala dangaa soxla sa kayit kër sa kër am jafe-jafe nga soxla am sa kayit kër mhm, wala nga nekk en sa kayit nit mu nga nangu sa kër wala lu ci wàllum kayit loolu dama ci am sirlu xaqan ci am sirlu xaqan wax dama koy suul bépp doomu adama bu ci waxaat day génn àddina. allahu akbar wax loo munta def ci àddina wax mhm, mhm. dama koy suul nit bu ci waxee day génn àddina wala sa kër nit bugg ko nangu ñoo xam ku mu munta doon ci mhm. àddina mu bugg a nangu sa kër mu wax da ngay dem tribunal dama lay wax tëddal sa kër nga nelaw wax bi dama koy suul bu ci waxee day génn àddina man li may wax nekkul dama koy nëbb dama lay wax ma wax la ma woon la preuve ma wax la teel sa alal boo li ma la wax nga gis ko nga doog maa fay ndeysaan waaw euh, wax kontaan waxtaan bi maa ngi nuyu sama frère bii di Idi mu ngi may message ni ma santal ma Thierno Boubacar bu baax parce que ginnaaw yàlla tey bu ñu demee bay dama ko ñëw rek ginnaaw yàlla jëmam ji moo tax numéro téléphone baa ngi noonu di 77 615 57 40 615 57 40 Thierno Boubacar Diallo boo bëggee sa aajo faju woo ko mais lan mooy sa secret ak nit ñi parce que tey ñëw naa fekk fi ay kilifa xam nga dañ naan Ndakaaru kilifa yi. Mm. tey ma ñëw fekk fi ay kilifa ñuy def ay témoignages ñoo xamante du duñ feeñ sax ci ay image mais tey dañuy def ay témoignages di wax ci yow yan relation nga am ak ñoom. waaw euh, ñooñu noonu waaw xam nga ne nit kam boo ko defalee lu baax rek mu fay la lu baax. dëgg la. nit euh, ku bugg am lu baax da nga def lu baax. Mm-hmm. ku bugg nit ñi ñu jox la cër. Mm-hmm. na nga fekkee ngay wax ak ñoom sa kaddu du deñ mm-hmm. ñii ñi ngay gis fii nii tey jii téeméeri junni sëriñ mu ngi fii ci réew mi bugg na am ak ñoom xamante ak ñoom bugg na mu ñëw si ñoom mhm. waaye man nekkul alal moom booleeg ñoom mhm. nekkul dañuy indi seen alal di ma ko jox moom booleeg ñoom mhm. lépp lu ma waxante ak ñoom di dul deñ kaddu moom booleeg ñoom nga te nit fi la lay naw ci loolu la la mun a jàpp kaddu kaddu moom booleeg nit ñi su ma la waxee mun naa xamal ne mun naa dinaa ko def. Mhm. soo ma indale milliard nga jox ma su munul dama lay wax munu ma da ngay ànd ak sa alal nga dem. Mhm, mhm. lu ma munul munu ma ko lu ma mun mun naa ko. képp ki ma wax dinaa la defal. dinaa la defal te lu ma la wax tamit dinaa la ko defal bu nga gisee ko sa bët. moom moo téye nit ñi ci man. nga ci tey ci ci ñu ñu fal. démb. am na ni nga ci xam ne ñu bëri su may taalibe la. waaw fekk naa fi kilifa gu mag am nga leen fi. loolu yëpp. du sum mun-mun ci mhm. yàlla lu mu ma jox mhm. dafa am yàlla bu la joxee mbir mhm. yàlla du war doomu aadama dëgg su la waxee defal li nga gis yow kay yow yaay waaye boo defee rek da ngay gis sëriñ la ñu wutante munoo ñëw nga taal sa kilim nga taal sa kilim ba mu sedd nga tëdd nga nelaw nga li nga bëgg na nga ko am nekk déedéet àndul ak loolu foofu noonu laay ñëw liggéey ak coono moo ànd foofu noonu sax laay ñëw ak ci li nga xamante ni mooy wàllu xalwatu gis ni man dinaa toog di la woo ay weer du ma la mën a jot mais sa secret ci xalwatu laa bëgg xam lan la parce que sëriñ yu bari amatuñ jot dugg xalwa ah. man damay wirda nga ti man li may nelaw ëppul 4 heures de temps. li ngay nelaw nu may nelaw ëppul quatre heures de temps. bi ma bi ma nekk bu ma jógee daara ba tey. Mhm. damay wird ci sama kurus bi laa nekk damaa ñeme kurus foo ma gis damay wird. Mhm. guddi dama koy wird ba mu jeex bëccëg dama koy wird. Mhm. man du loolu moo waral munu ma nekk Ndakaar bu ma ñetti fan kese laa mun a am. lu des li yëpp suma dëkk lay nekk. su ma nekkee sama dëkk ngati foofu lay mun a def. li ma bëgg a def yëpp ci laa koy mun a def. ngati bu ma ñëwee Ndakaar fi nit ñi soxla nañ ma. nit ñi dañu may seet si dañuy bëri. dañuy wàññi sama jaamu yàlla. Mm-hmm. nga ci man nekkul alal bi rek lay xool nekkul mm-hmm. taalib bi rek lay xool te da nga diggante ak yàlla tamit dama koy xool dama war a jaamu yàlla te da nga ñeme kurus waaw damaa ñeme kurus foo ma mm-hmm. gis man maa ngi wirtu kurus bi moom kurus bi moom moo nekk suma ngànnaay kurus bi moom moo nekk suma ngànnaay lu ma lépp li mu bëgg a def ci moom laa koy def aaju yi mu bëgg a faj ci moom laa koy faj ma ñëw ci question bi nga xam ne nag euh, ñu bare ma koy laaj muy wàllu ngóora man gis naa ñoo xamante ni fekk naa leen fii ñuy seede ni yow ginnaaw yàlla tey bu demee ba seen say neex yow la am na ñoo xam ne dem nañ ba tuddee la doom sekkere koo xamante ni ra maanaam impuissance. waaw ci wàllu ngóora. Mm-hmm. loolu liñ ci gën soxla mooy nit bi nga dem xamante ne boobu moom génne na ci xelam. Mm-hmm. ku toog naan man toog naa ay fanweeri at nekkatuma góor. Mm-hmm. wala ki nga xamante bu mu nekkee xale ba mu màgg munul am soxna nga ti nekkul góor. Mm-hmm. kooku lañ ci gën a soxla ñu faj la ba nga wér. Mm-hmm. nga am doom nga tuddee ñu ko. Mm-hmm. ñun loolu lañ ci gën a soxla ngóora loolu yàlla diga loolu am na luñ ci mën am na ay ren yi nga xamante ne mun nañ ko ci. te dañ ko jàng xam ko ci. waaw am na yi nga xamante la bu ko ci bindee ñu jox la ko. lu des si sa dund doo mun a takku la ngóora. waaw si mu ak sa ngóora xam nga kurus. ni ngay jël numéro téléphone nga composé nga wax bàyyil ma woo Amadou. Mhm. bàyyil ma woo Samba. Mhm. man noonu lay jàppee suma kurus bi ma jël sa biddéew. Mhm. ma ne bàyyil ma branché diw bàyyil ma branché diw. allahu ku nekk ak li la yàlla may xam-xam am na lépp tuubaak doo wax amul xam-xam mm-hmm. am na xam-xam waaye fi ko yàlla maye mm-hmm. ñun tamit am na foofu fu ñu yàlla maye ku nekk mm-hmm. ak yàlla nu mu la mayee xam-xam waaw loolu moo waral nit warul wax xam-xam amul da ngay wax man ko waxee nga faj aajo mais ci wàllu fal nit parce man fekk naa fi ñaari kilifa yoo xamante ni euh, vraiment man bi ma dégloo keroog discours président mosuma woon am yaakaar ni lañ leen fal tey ma fekk leen fii ñu lay sant bu baax a baax di la gërëm grâce à toi wàllu wa wàllu fal nit. man nit dama lay fal ma samp la. Mm-hmm. nekkul ngati suma nit daanuwul nekkul ci assemblée bi nekkul ci ministre yi sama benn nit bu daanuwul. Mm. xam nga télé lay wax. bu dee lu ma amul rek keneen génn mu wax lu ma wax. du dëgg la bu dee suma taalibe mu ngi ci. Mm-hmm. dina génn mu wax wax amul. Mm-hmm. ci ngati télé lay wax. nekkul ci assemblée bi nekkul ci ministre yi. man dama lay taal. ma samp la mhm. te am na ay nit yu ci nekk man maa leen samp nanga ci bàyyi xel fii bu téeméeraat ku ko mun a jëlaat at euh, réew mi ñoom seen nguur day continuer di nga liggéey ak ñoom allahu akbar bu dee man maa ngi dund mhm. ñoom seen liggéey day continuer rek di nga mhm. liggéey ak ñoom nga dama leen samp suma ma la xasee samp jeex man suma bopp sax mënutuma ko dindi loolu sama maam moom ma ko jàngal dama kaa donn ci sama maam man sama maam mu ngi dund sama maam téeméeri atam ñaari at moo ci manqué allahu akbar mu ngi dund mu ngi dox soxla am day gis léegi noonu du génn ci biti. dëgg la kenn du ko teg bët mu ngi ci biir ci kurusam rek la nekk. du génn dëgg la du génn ñun suñu bopp. Mhm. weer bi lu ñu ko ci gis du bëri. waaw nga te nitu yàlla la. nitu mhm. yàlla bu yiw la. Mhm. mu mel ni mu mel ni ñun amuñu keneen ci àddina sudul moom. mu mel ni foofu noonu sax dafa mel ni li ñaan la jamaam sa sëtu koy jël lan moo tax nga naqaree gis parce que man bi ma ñëwee fii ak nit ñi nga xam ne ñu ngi fi taxaw di la xaar est yow di leen mën a recevoir li des ci guddi gi lan mooy sa secret ba nga naqaree gis. man suma secret sama maam dafa am suma yërmande man sama oh. maa ngi am benn at. man moom moo ma yar man moom laa kam dafa am lépp lu mu mun ginnaaw yàlla yonent bi kam naa ko. Euh, tey ma gis fi sa benn taalibe boo xamante ni kilifa la. ñëw yëkkati oto jox la ko. Hmm. naroon naa koo filmer waaye da ko jox ndigal ni ko lii taxul ma koy def pour tere dama ko def te yàlla tax yan relation nga am ak taalibe yooyu ba ñu yëkkati ay oto buy jar ay millions di la ko jox. waaw xam nga boo gisee ma ne la bul filmer nga ci nit ñi toppee wuñu ma alal. Mhm. nekkul taalibe yu ñëw ci man ma ñaan leen. ñëwuñ ci man ndax sama mbuubu bu rafet. Mhm. ñëwuñ ci man ndax sama oto bu rafet. Mhm. ñëwuñ ci man sama kër bu rafet. xam-xam lañu soxla ci man ma faj seen aaju. moo waral xam laay wax ak ñoom. leen woon kër. Mm-hmm. duma ma leen woon oto bu rafet. Mm-hmm. du ma leen woon xaalis bi ma yor. Mm-hmm. déedéet dama leen di woon xam-xam bi ma yor. ma faj seen aaju. ngati bu deen xam bu deen xaalis la. wala oto bu rafet ñu fi ñëw yëpp ñoo ma ëpp xaalis su ma taalibee ñoo ñoo bu doon kay loolu la ñoom duñ ñëw ci man. déedéet lan moo leen indi ci man. xam-xam bi ma yor ñu defal ma ko. man tamit bu doon la wàllum xaalis. wala alal mooy waral may liggéey. damay toog suñu dëkk. ngati tey pôle bu ñu ëpp nag amul ci réew mi. dëgg la loolu pël yi xam nañ ko. Mhm. pël bu ñu ëpp nag. Mhm. amu fa pël bu ñu ëpp alal amu fa. Mhm. ñoom pël yi xam nañ ko. nga man ci kër bu baax kër bu mag laa judd. waaw moo waral dama bëgg nit ñi. may wax ak ñoom ci wàllum xam-xam. may doog ak ñoom ci xam-xam. di leen dimbal ci xam-xam nekkul wàllum alal. kii lu ma indil nii. dama ko ci sant ma gërëm ko ci suma taalibe la ñëw na faj naa aajam kontaan na mm-hmm. Mm-hmm. yëkkati na oto mu jog ma mm-hmm. maa ngi koy wax mu jar jërëjëf yàlla na yàlla yokk xéwal bi yàlla na ko mun mu génn ko mun ak lu mu munoon ngati moom am na fu bëri fuñ jaar boo gisee nu mu kontaane moom am na fu bëri fuñ jaar waaye yàlla baax na mu mel ni nag euh, nit tamit ku dee ak sa bàmmeel euh, man du ma lu ma xamul mm. gis naa nga faj fi koo xamante ni bi muy ñëw dañ ko teg ci puus puus parce que man depuis sa matin ba tey maa ngi fi toog ñu ko faj koo xam ni dañ ko tegoon ci puus puus ginnaaw yàlla tey bu génnee jaar nii di dox sa jëm moo tax. waaw xam nga man ni eau de di def taas. Hmm. man noonu lay def ku feebar. Hmm. damay ko lu ci baaxul ma dindi ko sandi hmm. bu dee rab la nii laa koy dox jugal ki nan nga génn nga bàyyi. boo yul xam na nga xam nga lu la ciy fekk. lépp nit yi nga xam te ne. ñu ngay gis fi ma leen di faj. Mhm. ku dof dañu koy takk ñu indi ko damay wax bàyyi man dof du dugg suma kër. sa dof bi kay ci buntu kër gi lay yem waaye boo duggee lépp loo mënta àndal dalay woon ginnaaw soo duggee rek wér nga. Mhm. waaw. Mhm. ñooñu ñëpp boo gisee tey jii. bu ma ñëwee ba fii ngay gis nit ñi loolu yëpp ci wàllum xam-xam la ci wàllum may yàlla la. nga yàlla mooy may. waxuma ñeneen ñi amuñu xam-xam de mun nañ am xam-xam waaye fekkee ñu tayal. ñu tayal liggéey. sëriñ boo tay la liggéey doo am loo bëgg. Mhm. ñun dañuy liggéey dañuy mhm. sant yàlla. Mhm. ñun lépp lu ñuy dox. moo ci liggéey. waaw mu ngati moom lañu xam. waaw moom lañu xam. voilà mu ngi noonu Thierno Boubacar Diallo nekk fajkat bu mag numéro téléphone bi di 77 615 57 40 sama question bu mujj mooy dama gis loo xam ne mosuma ko gis ci ay sëriñ muy kiy faj ay tubaab. waaw tubaab dafa am ay sirlu nu ñuy faje tubaab. ngati tubaab nit la. comme hmm. nit bu ñuul nu mu nekkee nit. Hmm. nit bu weex nu mu nekkee nit. mais loolu yomb na. waaw loolu am na yu ñu bëri xamuñu sirlu boobu noonu. Hmm. sirlu bi man ci sama maam laa ko amee. allahu akbar man damay jëflante ak tuubaag dama am na ay tuubaag yi nga xam te dañuy am ay entreprise gannaaw yàlla yonent bi maam maa leen samp ni ngay amee soxla. yow nit bi tuubaag moo la gën a bugg sëriñ. ah illah illah waa arabia. ñoom ñëpp dañoo bugg sëriñ. ñoom sama seen sirlu man yor naa man yor naa sirlu ngir yëpp mhm. nit bi nga xam te ne doo sangu set mhm. am na sirlu fi may jaar yow ngati loolu sa yaram dafa am sobe dafa am fi ma jaar ak yow nit bi nga xam te ne danga set mhm. am naa yoon fi ma jaar ak tubaab lay seetal ma xam te ne yow sa yaram fii jaar ak ma faj sa aaju am naa ay taalibi tubaab maa leen tuumal tuubal ginnaaw yàlla ak yonante bi tey ji ñoom ñu ngi bokk ci man tey ñu bari di am jeexi jaaxa ci li nga xamante ni mooy troisième candidat bu président Macky Sall en tant que yow ngay kilifa euh, ban njàngat nga ci am waaw xam nga nit ku génn ci yow nga génn ci moom. Hmm. ñun defuñu politique waaye am nañ suñuy nit am nañ ki nga xamante ne ku képp ku la ku ku wax yow la nga wax moom la. Hmm. Macky Sall ñun ñu ngi ginnaaw troisième mandat da koy am su lu mu def da koy am. Macky moom kay mooy bugg a bàyyi mu bàyyi waaye bu dee dafa bugg a toogaat day toogaatee ñun ñun dinañ ko toogloo. Macky Sall. bu dee dafa bugg a toogaat incha allahu rabbi dinañ ko toog. troisième mandat. mais nga yaakaar du am jafe-jafe ci réew mi. réew mi du am jafe-jafe ngati am na ay duwaaw yi ngay def ci réew mi déedéet du am jafe-jafe. déedéet du am jafe-jafe. néew du am fii ci réew mi dara du takk fi problème du fi am. dina def ba lu mu bëgg def bu bis bu mu bàyyi bu soobi suñu borom. allahu akbar allahu akbar ginnaaw yàlla ak bi. Mhm. ñun ñu ngi ginnaawam. Mhm. te dinañ ko dimbali. Mhm. nga ci ñun moom lañ xam. nit ki nga xam ki moom ngay jàpp. dëgg la ne da ko bandum. xay nekkul mbokk taalibe la. taalibe ak mbokk bu ñu amoon keneen tamit mu nekk suñu taalibe ngati am na ñu ñu samp tey am na ay yu ñu samp am na ay séeréer yu samp ñu ngi fii ci palais bi ñu fii ci. ci ministère yi ñu ngi ci mm-hmm. assemblée bi mm-hmm. suñuy taalibe lañ mm-hmm. ñun képp ki nga xam te suñu taalibe ga ñun yaa ñu génnal lu ñu am man suma taalibe la am ngati yaakaar la am ci man taalibe am ci yow yaakaar kooku mënoo ko seetaan man suma taalibe moom génnal li ma am waaw ku nekk sama taalibe ma dimbali la waaw euh, voilà gars yi liñ naan lu duuf ci nag bi xajul ci cin bi waxtaan bi neex na trop Euh, vraiment doy luñ ci nag parce que moom xat na trop nit ñaa ngi taxaw fii di ko xaar mbedd maa ngi fees dell ñun ñu ngi fi depuis si suba ba tey presque gis nga 2 heures du matin lañ koy doog am nii ngir disponibilité du ñu tàyyi benn yoon parce que nit ñee koy laaj mu ngi noonu dama ni Thierno Boubacar Diallo la numéro téléphone bi di 77 615 57 40 képp ku bëgg sa aajo faju boo jokkee ak moom ci numéro bii di daw suñu service commercial bi di ci jot incha allah rabbi ñu ngi leen di